mbokk internet yi ñoo ngi fi ak sunu papa Ndiouga Dia ah, di entraîneur ci Papa Sow ëmb xale yi papa ñoo ngi lay nuyu. leen di fay mon fils. papa ñu gis la tey ñu ñëw ci euh, open press ou Papa Sow fekk la nga ëmb xale yi ana lan mooy sa taxawaay tey. xanaa taxawaay kilifa taxawaay responsabilité ñuy samay doom ma dëkk ñoom parce que ñu jox ma faveur boo xam ne wax dëgg yàlla kuñ ko jox. war ngaa boo amoon taxawaay sax boo taxawaay boo mën a am sax war ko gën a jàppale la nag ñoom faveur bi ma jox. may ñaan yàlla daal yaakaar gi ma am ci man ak yëg gi am ci man ak doylu gi ci man may ñaakaar yàlla gën maa dooleel dimbale ma ba heure man ñoom rek du ma rus du ñu rus quoi mooy suma taxawaay man. papa tey taxawaay bi ginnaaw bi loolu weesoo ana tey ban yëg-yëg nga am ci état de bi papa Sow sant yalla bu baax am ci contentement bu baax parce que toujours dama naan boo doon changé tur papa tey Boy Bambara laa koy tuddee Boy Bambara comme tolloon catégorie ñe mo ko ndax bëre ba papaam ni mu toll bëre bëre ëpp nako ko tollu mu ëpp nako papa ak asam mom papa kenn du ko soñ ci entraînement entraînement bu fekkee def na yow wër nga sa cër wër na sa cardio baax na deg nga ndigal li ñu la sant ngay def lu ñu la santul doo ko def nen yaakaar lañ ma am ci moom. mais papa ngeen di daje xale boo xam ne que moo gën a dajeel ci làmb. non loolu loolu man dama koy randal ne ku la dajeel ku dajeeg laa dëgër laa dëgër moo laa dëgër kan moo gën a ñas kan moo gën a dëgër Ama Baldé kan moo gën a dëgër nees kan moo gën a dëgër Baye Mandione kan moo gën a dëgër papa ñum dajeel ay ndaanan lañu papa. ñun dañuy ñu ay ndaanaan lañu kooku no problème non bi ko gën a ci àdduna équipe yu Lamsaar la ko am ak tey ngeen dugaat Lamsaar. bu ñu ci combat nag diggante moom ak nees la ca Lamsaar ndax jom ak ngër mi la wane ba daan waaw. di dajeeg Siteu xale boo xam ne que ni nees moo ko yar ana ban nan ngeen koy waaje comme ni ñuy waajale combat yëpp rek li nga xam ne moom la làmb laaj doole mën a bëre dégg ndigal defal lii bul def lii bàyyi lii nga bàyyi lii noonu lañ koy waaje papa neex naa àndal parce que euh, du mbër mu ndaw ci lamb mu ngi bëgg a def ay fan ci làmb neex naa àndal am na loo xam ne ba nga ko wax sax moom moo la koy wax papa am na loo xam ne ba nga ko jàng sax moo la koy wan comprendre dama la bu doon change turam booy Omar laa koy tuddee parce que saa ngi wan benn facette boo xam ne fii dama ko mais papa comprendre nga mu ne non man noonu laay bëree kon papa ànd moom ci làmb dafa neex parce que li gën a li gën a et puis làmb nekku si dënn bu rëy wala guddaay xam nga làmb fan la nekk jom ak ngër mi ak jom ak ngër mi te mu ngi ci moom mbër danga am jom de nekk gër de làmb ji loolu fay donne de du dënn bu rëy de parce que bu su mën a gis bu sàq comprends nga kon jom ak ngër mi mooy mooy mbër ak mbër te mi ngi ci moom waaw mi ngi ci moom. ñiy digal papa Sow yow waaye yow su ma doon papa ma at bi ne pare ma dal ci koom cuuki ak moom bëreeg moom làmb xeex la ñu wax làmb da ngay fighting pourquoi pas dóoral songal jàppal bëreel leneen newu fi parce que bëgg nu def ñu def la ko boo tax wee defoo ko ñu def la ko làmb loo ci waaj bàyyi ko sa morom exploité ko dem yoonam man nu ma di ànd ak benn mbër naan ko téye sa bopp dafa li dóoral xeexal bëreel moo la fen def ko waaw ah, man noonu laay conseillé mbër man man noonu laay ànd ak mbër parce que man noonu laa doon bëree man ay mag bu ñu fekk xale di fo tax fo ba nekk réalité boo bëggee boo bañ a doy de nga ñàkk fayda da nga cee ànd jéem a seet mu nekk réalité ñun loolu moom noonu nekk pour defar lu lu maale ñu ne maale na lu maale maalewul ñu ne maalewul ñun loolu la ñu ànd ak ñoom mais ñoom seen ànd jiitu na 100 pour cent bi waaw. kon war xam ne parcelle mooy lépp. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga mag ñu njëkk ñi daan nañ war fas demum réew ne dañuy gane ji tëdd fa noppalu dallu day dallu rek mais bu yëlbu rek ñëpp xam ne yëlbu na day dallu rek dara la wàññiwul parce que nag cër dañ koy noppal cerveau dañ koy nappal mbër compétition bi mi compétit chaque jour lépp fii la làmb fii la école baa ngi nii. fee répétition rek la taxaw tuuroo ndox rek at bi suuf la nga liggéey liggéey bi dem sa yoon la fee du dara fee ñi mu tiital mooy ñu ko xamul mais lépp a ngi fii ku ñëmul fii du gawuma la fële fii ku ñëwul fii man gawuma la fële lépp fii la waaw parcelle te jógee gu fi nag waaw ndaanaan na ko fi jëlee de waaw naanaa naan naana ko fi jëlee rek laa wax man xaw ma kuy naana ma dama fii na ko fi jëlee ndax ndax na ko képp waaw. mais bu nu wëlu mbër mi nu ñuy def xaw ma ko de laaj naa la ko bu ñu ko wëlu nan la ñuy def man du man da ko mu wëluwul waaw. champion la mooy làmb boo ci génnee làmb làmb amatul làmb yaa ngi passé fii servo yaa ngi fii. Vous n'avez ne na franc bu ne na modulo Ama deug la Ama Papa saw hein Papa non non non non c'est que trouver neex rek trouver sa suukar quoi muy sama dom aussi comme ni ma mën a non nous laa mën a yi tax moy djoum rek. Jonwaar sori na nous bu làqatoo Jonwaar Ndakaaru ngay feeñee ñun ngi taw di xaar rek ku ngay ku ngay ba làmb ja ba làmb ja yal na yàlla boole am yar ak teggin nit boo ko bëggee ci li def waaye waaye lépp lu ko yàqaloon ko moytu quoi booy Siteu maa ngi koy encouragé mu waxtaan ak njabootam nañu ànd ak yar ak teggin ëmbum seen mbër ñu ñëw leen yàlla may nu jël. Papa Sow maa ngi koy encouragé di wax passé 1 ba 26 dañu ànd ak yar ak teggin ëmb seen mbër bu ñu demee làmb ji lu may nu jël am lu may allahumma salli ala sayyidina Muhammad